jërë ngeen jëf mbokk yi nga xam ne yéen a ñuy topp ci 24actu.com euh, euh, xam ngeen ne tey jii euh, Serigne Atou Diagne nekk responsable moral bu is bu tarxiya génn àdduna ñu koy jëbal borom moom fi nga xam ne rek moom moo di fii ci bàq ya waaye tam taxawaay bu am solo bu nga xam ne askan wi amee nañ ko rawatina nag taalibe murid yi bàyyeekoo fu nekk gis ngeen euh, ni nga xam ne rek moo di mbooloo mi fi daje ngir gunge euh, ki nga xam ne moo fi nekkoon responsable moral bu Hizbut Tarqiyyah di Serigne Atou waaye itam liggéey gu solo gi nga xam ne jot na ko amal euh, ci kuréel gi depuis bi mu ko jiitee ak léegi ëpp ñeen fukki at moom Serigne atu Diagne gis nañ taxawaay bi xalif général des mourides mu Mountakha Bassirou Mbacké daal di koy gunge fi nga xam ne rek moom moo di fii ci Baqiya daal di koy taxawu ba ñu jëbal ko boromam mu nekk itam lu euh, xam ne euh, daanaka rek tey jii ni ñu koy mën a waxee rek moo di banqaas bu mag euh, wala sax guy gu mag moom moo daanu di Serigne atu Diagne ndax liggéey bi nga xam ne amal na ko ngir jàjji ndaw ñi ca université waaye tamit ba egg file nekk lu am solo loo xam ne itam ndaw yu bëri jànge nañ ci lu bëri itam waaye tamit taxawaay boobee nga xam ne kuréelu Hizbut Tarqiyyah ñi ngi koy amal moom Serigne atu Diagne ñi ngi koy ñaanal sunu borom dolli ay leeram solo bi nga xam ne jot na ko amal euh, ci euh, Hizbut Tarqiyyah voilà euh, sëriñ bi kàddu yooyu yëkkati jëmale ko ci sëriñ Atou Diagne lan moo la gën a marqué ci moom. waaw ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi sant sëriñ Touba di jaajëfal sëriñ Mountakha di ko ñaan si borom yàggal ko fi loolu te ànd ak wér yaakaar naa ñun fekk nañ lu bari ci daara ji ndax bi ñu am 12 ans lañ duggoon ci daara ji mooy 1992 te an bi ñu fi njëkk a màggalee mooy 1992 bi ma fa njëkk a màggalee ma fekkee. ku demoon daara ja ku ñu ngi ñëw fa tey di nga xam ne soppi ko am nga ci ba suñ kool daanu muy taw bi taw bi métti léegi nag foo teg sànq muy maat bi kon li ñu gën a marqué rek mooy dëgg ma gi dëmaloon suñ tubaa fa xastal bu nekk fa xastal lañ ko pour bëgg koo gàllank gàllankoor waaye suñ tubaa rek la la la dëgmal suñ tubaa fay na ko tey ni ko suñ tubaa fay ni ko suñ tubaa fay tey nag hmm. mooy suñ tubaa ma ñëw yenn moom ba maam ba taxu ko jëbal ko boromam kon ñoo ngi ñaan suñu borom teer ko teera ko te tax ñu ci barkeem ci barkeem am seexanta li ma ko dëggalee jërëjëf man ndar laa jóge mhm. man je viens de Saint-Louis Cheikh Sey Xasay la tudd ci ñaar rakkaay laa nekk di mu dëggal ci li mu wax moo du galgal bu nekk galgal na ko noonu a galgal bépp taal ba dañuy sonn sax Ahmadu Bamba yàlla jox na ko adduna jox na ko alaxira naja umul baaxil mi ne niiraani dunya wa uxraa min xusraani araba daw na ma kullu ma la si xaaw kullu texe du ñëw ci man du ma jege allahumma salli ala sayyidina Muhammad inna lillahi wa inna ilayhi raji'un noo ngi delloo suñ bopp ci yàlla mi nga xam ne lu am rek mooma di am lépp ci coobaram ci lay am di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant di ñaan jàmbaari lislaam ji nga xam ne di jàmbaari yoonu murit moo fi bàyyi ko tey sëriñ saa borom tabal ko aljanna ya gën a kawe muy aljannay si yoonu murit yëpp ko ñàkk ñàkk nañ jëmm joo xam ne ku ku ni ko arab di waxee naadir nit ku nit ku néew ci jamono ndax tey ñaata million ngi nit ñoo nekk ay Hizbut ay xale di ci seen seenu ndaw ba tey ñu doon sip am ay bijjaaw mu fexe bañ tege ci siraatal mustaqim jàng li war a xam ci diine jàng li war a xam ci àddina walbatiku doon ay taalibi sëñ tubaa seen dund gépp ñu jeexal ko ci sëñ tubaa loolu ab liggéeyam ab liggéeyam dëkk bi tamit kenn ku ne gis na taxawaay bi mu ci taxaw waaye boo ñëwee ci xasida sëñ tubaa yi rek liggéey na ci liggéey boo xam ne kéemaane na ndax bu njëkk ay xam ngeen jàng yi fi amoon ñun ñëpp ñu daan ko dund waaye def nañ ñoom xasida yi noo xam ne mboolem fu daaji mag ñi nekkoon ñu jëli ko ba ñëpp xemmeem ko ba ñëpp xemmeem am njàng fenn fu nekk njàng mu yegg fa loolu liggéey bu Hizbut Tarqiyyah la waaye ci ndimbal loo xam ne Serigne Atou Diagne moo ko moo liggéey li jafe ci àddina nag mooy tàmbali mbir yeggale ko mhm. te ku ne xam ne ne Serigne Atou loolu la ko Serigne Touba defal mooy mu tàmbali mbooloo yar ba ñooñu xëy doon ay bijaaw am ay sët te mbooloo moom dara mejju ci ñuy gën di bëgg Serigne Touba di gën di teg ci siratul mustaqim ba tey lii mu am nii néewaana ah man de yàgg naa ci dëkk bi fi laa gane ba am juróom fukki at waaye mosuma fi gis kon nag ñu xam ne nit ku baax ngi nii taalibe Sëñ tubaa ngi nii ku bëggoon Sëñ tubaa ngi nii wax dëgg yàlla nun de loolu rek lañ xamu ci moom jaxasoo ñu moom ci lu bari fu ma mas a gis ne ma yow de ñoo bokk baay ndax baay ba sama baay la kon loolu wane na ne joxoon na ma cër waaye lu la gën a lii gën a marqué sëriñ atu ci nit ñi mooy soo ko gisee nun ñii di ndaw am ay ñeent juróom fukki at nu gën a kattanu ci sëriñ bi te juróom-ñaar fukki atam benn ci des kon xam nga ne ay atam bari woon na waaye bu jógee jëm ci sëriñ beeg laxasaay gi da nga naan kii xale bu ndawal pëste beeg kattan geeg lépp day feeñ ci day feeñ ci sëriñ aatu kon yàlla na nu ko yàlla na nu ko yàlla fayal waaye nag euh, borom moom ba muy wax ne ba muy digle dafa wax ne yaa ayyuha alladina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim waaye lan la ca wax tuminuuna billahi wa tujahiduuna bi amwalikum wa anfusikum mhm. te loola ca la sëriñ aatu nekk ba xëy ba xëy ba xëy ba xëy dem mag ñi nag dañ daan wax ne gàddaay ñibbi bokku ci te dafa gàddaayoon fekki Sëriñ Tuubaa si dëkk bi liggéeyal ko fi liggéey boo xam ne ko xam xam nga ne Hizbut Tarqiyyah am na solo ci dëkk bi lool liggéey na ci yoonu murid lool jëlee na daayira ci zéro yóbbu ko ci junni tey bari na daayira yoo xam ne buñ fi amee ginnaaw yàlla roy Hizbut Tarqiyyah rek moo moo tax moo tax daayira yooyu am wax dëgg fa yàlla kon yal na nu ko yal na nu ko yàlla fayal boole ko ci ñi nga xam ne alquran day wax ci ñoom ne wa man yaxruj min baytihi muhajiran ila allahi wa rasulihi thumma yudrikuhu almawt faqad waqa ajruhu ala allah asalaamu waaw waaw loolu laa doy woon loolu laa doy woon waaw yóbbu ko yóbbu ko